bonsoir asalaamaaleykum mbokk auditeurs ak réew euh, Rewmi FM dal leen na jàmm seen émission sans filtre euh, di jotaay ndaw ñi fii ci réew Rewmi FM lay am mercredi bu jot bu 15 heures jotee jàpp 16 heures euh, tey nag comme niñ ko waxee woon rek ci bonne annonce bi a nekkul jotu moo fi teewee waaye nday Khady Diouf moo di chargé de communication mouvement liggéey jigéen liggéey jariñu moo ko fi toogal ñu fas yéene waxtaane jigéen ñi nu ñuy def ak mbasum coronavirus coronavirus bi ak ñoom seen kuréel bi lan moo ko tax a jug ak lan la ñuy xeex loolu lañ fiy waxtaanee mbokku déglukat yi euh, ku ci bëgg a participer rek euh, dégg ngeen numéro yi 88 628 64 64 plus 1 wala 88 628 86 86 plus 1 euh, wala 88 628 85 85 plus 1 nga daal di bokk ci waxtaan bi balaa ñuy dalal gan gi Mor maa ngi lay nuyu yow ma bokk plateau bi. waaw Sylvie maa ngi nuyu di nuyu euh, suñu invité du jour di euh, nuyu sénégalais yëpp nga xamante ne ñuy suivre partout euh, dans le monde que ce soit au Sénégal que ce soit fi nga xamante ni mooy à l'étranger si suñu plateforme digitale yi fi nekk lu ci mel ne rewmi point comme suñu page Facebook ak YouTube bi di jaajëfal ñëpp di ñaanal sénégalais aussi ci bis bi nga xamante ne lañ nekk tey lépp loo xamante ne ñaan nañ ko ci bisu xas de tey bi yàlla sotti ko yiwte def ko jàmm nekk ci biir Sénégal mm-hmm. Euh, Mor Fall nga ñëw rek rapidement rubrique actualité lu gën a fës tey. waaw voilà rubrique actualité bi ñu andi tey dañ koy accès si euh, coowal dix milliards yi nga xamante ni le président Macky Sall euh, wax nañ ko ci wàllu éducation ne dinañ jël lu toll ci dix milliards étalé ko si trois ans pour juste ay tenues yoo xamante dañ koy confectionné ak pour sénégalais yi pour jeunes élèves yi donc que ça soit le privé que ça soit le public donc lu bëri loo xamante ni la plupart des sénégalais lañ naan pourquoi. à chaque fois Macky Sall buy génn di def yenn dépense wala bu di jël yenn décision yi ça chaque fois day nekk ci loo xamante ni c'est c'est day nekk lu inutile. Mm. parce que du toll dix milliards alors que ñu ngi ñu ngi coow temps passé naan euh, lii d'hôpitaux yi doy ñu euh, li nga xamante ni moom mooy wàllu yenn infrastructure yi amuñu ko école yi. Ah, presque ah, abri provisoire mi ngi am ba léegi euh, boo demee ci banlieue sax am na ñenn ñoo xamante ni mu ngi noonu donc mu dem ñu ne ay dix milliards dañ koy def ci ay lu ay ay tenues. Mm-hmm. pourquoi ay ay ay tenues. parce que am na yeneen yoo xamante ne war nañ ko mën a jënd. Mhm. loolu waral nag fi nekk ni Sénégalais yu bëri ñuy pose la question moom mooy est-ce que ñun suñ suñ suñu njiitee xam nañ lan mooy dëgg-dëgg priorité wu euh, li Sénégalais soxla. Mhm. parce que jamono ji ñi ñuy coow naan Seydou doon wax ne euh, hôpitaux yi am nañ ñenn ñoo xam ne ñu ngi jël ay matériel di ko jaay. ci ay ay privé wala boog euh, oxygène bi am na jafe-jafe parce que nee nañ dañ koy rendre gratuite mais est-ce que rendre gratuite boobu est-ce que aussi c'est effectif parce que bu ñu nee dañuy rendre gratuite est-ce nañ accompagnement yu mat Mm. pour mën a def gratuité ci eh, eh, ci privé yooyu parce que privé yooyu aussi ñoom seen xaalis yi jël di ko investir au moins ñu mën a am dara si nit ñi. Mm. donc bu ñu dañuy dañuy gratuité ñu li nga xamante ni moom mooy euh, dañu jël euh, dix milliards trois milliards euh, anam njëkk bi dañu jëf trois milliards def ko ci ay confection tenue mm-hmm. waxoon nañ fi bu yàgg ne dine Sénégal dina benn instant ay tenue la ñuy def demul donc pourquoi yu ñëwaat ba instant bi daal di koy ne dañ koy indiwaat hmm. am na ñeen ñuy poser la question ne est-ce que c'est juste pour essayer de d'enrichir des personnes yoo xamante ni euh, peut-être que ñoom gis ñu gis ñu seen bopp ci li nga xamante ni moom mooy wàllu nguur gi donc si kooku ñu ngi dem ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy seen seen njeexital il cherche à euh, euh, coller yenn morceaux yi nga xamante ni yàqu na ngir mën a neexal ñenn ñi am na ñenn ñu ñuy wax ne ça euh, ça vient à leur parce que dañoo war a daal di dindi yenn kiiw social yi nga xam ne mi ngi am ci école yi mm-hmm. parce que am na ñenn ñoo xam ne seen parents yi amuñu moyen wu daal leen di jëndal ay yére pour ñu koy sol pour dem jàng ji ñeen ñi seen parents yi amuñu yenn moyen pour mën di fay yenn affaires yi donc bu ñu andee ne am nañ ay tenues c'est juste pour régler benn kiiw carte sociale mais ci ñenn ñi xamante ni ñoom ñoo jàpp ne c'est pas le moment ñuy wax ay waxu dix milliards parce que dix milliards xaj na feneen mm-hmm. dix milliards mun a defar ñenn ñi nga xamante ne fi mu nekk ni caara ñu ngi coow ay ay passerelle tabax ay école sax am xale yu jàng mais avant avant kii sax avant avant ñuy wax ay waxu ay ay waxu na ay ay ay euh, yenn école sax mais boo demee banlieue bi am na ñenn ñoo xamante ni teer bi jaar na fa fu ñu jaar ngir mën a jéggi. Mm-hmm. te lu leeral loo xamante ne boo demee Caaroy fi nii euh, fi ñuy wax école Masseer Diagne. Mm-hmm. école primaire la mi ngi nekk ci camp bi. Mm-hmm. amuñu benn passerelle bu ñu mën a jàll pour mën dem donc xale ndaw yi ils sont obligés seen parent yi. dañ leen di jàllale ñu jógee lu toll ne. Euh, deux kilomètres dox ko pour mën dem ba benn passerelle bi nga xamante ne moo nekk côté police Caaroy. pour mën te foofu wóorul parce que des agressions là-bas. te buñ jégee aussi ils sont obligés ñu doxaat beneen tour bu gudd pour dem rallonger école fi mu nekk. Mhm. muy école bi nga xamante ni moom moo moom moo nekk foofu muy euh, euh, école Massaër Diagne di primaire bi muy CM Ndiawar jaan bi nekk ci côté Diamaguène bi. Mhm. tous ces écoles là terre bi. tëj na ko. Mhm. camp bi ñoom fermé na seen école parce que kenn du fa jaarati léegi. Mhm. donc les élèves sont obligés def de grandes tours yoo xamante ni pour mën a relonger loolu. Mhm. pourquoi jéem ñoo jël dix milliards yooyu ñu jël ci au moins benn cinq cent millions ñu tabax ay ay passerelles yu gudd pour élèves mën a mën a jéggi. pour suñu yaay mën a jéggi. donc y' a de choses yoo xamante dix milliards yooyu euh, andi na ko caw ci dëkk bi. te fi nekk nii ba léegi waxuñ ci ci kii yooyu ndax dañuy jël tenue yooyu dañ koy jaay mm-hmm. élèves yi mm-hmm. wala boo dañ koy jël jox ko gratuitement élèves yi lu ci mënte am le Sénégal fi nekk nii am nañ jël dix milliards di ko def ci ay di ko def ci ay tenue bu doon un milliard sax ëpp na ci ay tenue waxtu ma ñu ne dix milliards dañuy def ci ay tenue yoo xamante ni euh, privé ñoom am na seen tenue bopp boo bëggee ñëw ne di imposer ay couleur jaune nag parce que quatre couleurs lañu wax mm-hmm. mooy beige Euh, mettre en exergue sax li ñu wax moom mooy couleur libérale bi parce que mhm. Abdoulaye dafa nekkoon jaune bleu Macky Sall ñëw na donc famille libérale bi mooy continuer am na ñuy wax loolu mhm. mais lu ñu xool lan mooy priorité fi mu nekk nii ñu lijjanti ko surtout ak mbas mi ah, bu ñu fàttee cas de tricherie temps yi daa mel ni dafa xew waaw waaw boobu boobu am na benn bu amaat parce que bu njëkkoon moom mooy xale góor ki ñoom dafa defoon benn coroom lañu wax tante ji donc cela di fi mu nekk nii nit ñi dañoo ñàkkal fayda wàllu yi parce que boo waxee ñu boo waxee ñu naan la euh, loolu yàgg na fee am tricherie yàgg na fee am chacun à sa moyen tricher. waaye mot bii de moom mu ngi soog donc cela veut ñi fi nekk ñoom ñoo nekk des tricheurs moo a ndaw ñuy tricher boo amee ay njëb tricheur liñ naan ndaw xale li mu gis rek. loolu lay def donc suñu suñu ay ñi fi nekk ci ay ñoom ñooy wane tricherie yi. moo waral suñu ay ndaw di def di def tricherie mm. <laughs> te kon ku tricherie yi def ñu def loolu def la benn daan parce que ñee une la ñeen tëj bu ñeen mm-hmm. tëjoon lu lu bu mag doo gis kenn ku ñemee ñu tricher mais une semaine la ñu tëj après bàyyiwaat leen benn yoonee mm-hmm. ñi sama genre bi ñoo ñëwaat tricher waat bu ñu waxee ma sama tante la tricher mm-hmm. wala wala sama yaay la te bu boobaa en tout cas bu ñu jël moom dafa doy waar. li ah. gën a Euh, merci beaucoup Mor Fall ci mm-hmm. actualité bi ba nga ni des na waaye dañuy dara suñu mm-hmm. gan Ndeye mm-hmm. Khady Diouf euh, moo di chargé de communication mouvement jigéen liggéey jëriñu euh, Ndeye Khady ñu am mbégte contenté dalal la fii suñu plateau sans filtre ñu bàyyi la nga nuyoon ci mbokk auditeurs yi lay déglu. merci Sylvie maa ngi lay nuyu di nuyu Mor di nuyu képp kuy teewlu émission bi. di la remercier ci invitation bi aussi. pour ñu di divulguer Euh, suñuy activité parce que dañuy soxla genre tribune yi mm-hmm. dañuy soog a dañu nekk ay ndaw mm-hmm. di soog door donc dañuy soxla genre émission yi mm-hmm. donc euh, ñuy ñaan émission bi jaax si jàmm ak salaam. incha allah d' accord euh, dañ koy dooree rek jigéen ñi ak mbasu coronavirus gis nañ démb euh, benn hématologue femme mi ngi ñaax nit yi surtout les femmes enceintes. Mm. Euh, pour ñu dem ñàkku ji parce que ñu bëri gis naa si ñoo xam ne seen jëkkër yi sax ñoo leen ne bul dem ñàkku ji parce que te wóorul te pourtant amul benn contre indication ci vaccin yi. Mm-hmm. yow en tant que femme yow lan moo ci sa xalaat. Sylvie euh, dañuy commencer d'abord par mastawu ñëpp mm. ñu ci ñàkk parce que métti na y a des familles qui son vraiment décimées mbas mi lu existe la lu am la mm. damay sawar tontu sa question mm. dans la mesure où man dama considérer que ni la femme dafa nekk au début ak à la fin mm-hmm. de tout tey jii jigéen moo nekk ci kër gi propriété bi ñun ñun la wax ñun ñooy gérer xale yi mais dañu am yeneen yeneen yeneen rôle yu ñu war a jouer ci mbas mi mm-hmm. donc euh, balaa may ñëw ci hématologue bi li mu wax ci femme enceinte yi man dama considérer que ne jigéen instant bi dafa am benn rôle bu importante bu mu war a jouer ci famille wam mhm. euh, veiller à këram di set mhm. di aérer comme ni ñu ko autorité sanitaire yi di digalee mhm. mais aussi di veiller à ce que les enfants di protéger wu ñun suñu waree génn loolu suñu rôle la yàlla moo ñu ko jagleel dëgg la sacerdoce la bu ñu war a jël ak fierté léegi bu ñu ñëwee ci hématologue bi li mu wax xam nga au début on avait dit que femmes enceintes yi. Mhm. bokkuñu ci cible yi. Mhm. après il s'est trouvé que ni à Dalal Jàmm euh, par exemple ils ont eu beaucoup d'interventions dañu opérer ay femmes yoo xamante ne vraiment il fallait le faire. Mhm. Euh, ci saa si parce que seen grossesse mu ngi doon am ay parce que dañu jël Covid. maintenant su autorité sanitaire yooyu noonu ñu ñu wóolu leen jox leen suñu suñu confiance ñu demee ba gis ni que la femme enceinte doit se faire vacciner man vraiment je ne vois pas. c'est vrai que ni jëkkër kilifa la. Mhm. Euh, parents yi voisins yi tout le monde foofu Sénégal lañ nekk quoi tout le monde a son mot à dire ci suñu mhm, mode de mhm. vie. mais aussi affaire de santé responsabilité personnelle la man may jigéen tey sama doom bi ma ëmb. je pense que sama santé ak sama santé doom moo war a nekk sama priorité. donc dañuy faral di wax ni que ku nekk sa bopp d'abord sama bopp moo ma la gënal. du bañ naa la bañ naa épidémie bi lu am la. du lu nit ñi inventé. difficulté yi ci femme enceinte yi du dund lu du lu nit ñi di inventé. Mhm. chaque jour dañuy gis ñu ni def nañ telle intervention même su dul yow sa doom bi nga ëmb. je euh, pense que jigéen mbëggeel si doomam rek war na ko jaral yenn yi d'autant plus que c'est mhm. pour ta santé. Mhm. donc li hématologue bi wax c'est c'est c'est à partir du quatrième mois la ñu war a def la. le euh, euh, vaccin bi. important à préciser. voilà à partir du quatrième mois pour éviter des complications. loolu je pense que képp ku ci toll. même su nekkee ni que mënoo dem def ko sans sa ndigalu borom kër wala sa ndigalu entourage. Mhm. dafay jaar nga dem laajte les informations nécessaires nga convaincre ki la wala jox. Mhm. entre guillemets ndigal pour nga def ko. Mhm. parce qu'il s'agit là de ta santé d'abord et celle de ton enfant. donc euh, jigéen mi ngi au début à la fin. que ñoo nekk ci marché yi ñoo nekk ci ci pour man bu ñu doxalee rek farlu ci ñaax njaboot gi. farlu ci ñaax suñu entourage. Mhm. yàlla mun nañu dimbali. Mhm. Mhm. Euh, te ba ñu bañ a bàyyi yenn yi nga xam ne ñu ngi koy déglu parce que temps yi buy suivre euh, télévision yeeg rajo yi euh, bëri na ñoo xam ne ils ont perdu leur bébé. ñii balaa xale bi di juddu. la gaañu am na ci ñoo xam ne sax xale bi moo dund yaay bi décédé parce que tout simplement jëluñu vaccin bi. lu dul di déglu yenn fake news yi nga ah, xam ne nit ñaa ngi koy wax. autour du vaccin mais aussi aussi ma wax si dara parce a toog. laaj ñu jox leen les bonnes informations. Mhm. parce que li tax ñu bëri nangu ñoo dem ci vaccin yi ci man ni ma ko gisee. fake yi la début non vaccin début kii bi dañoo waxoon ne les femmes ne doivent les femmes enceintes ne doivent pas se vacciner se vacciner. Mhm. début bi loolu la waxoon. ñu dem ba ci biir ñu ne léegi ñi xamante ni euh, euh, war nañ lor bu demee ba am ñeenti weer. man nañ ko mën a jël donc nga loolu day semi doute parce que nit boo ko waxee lii si commencement bi ko sa nga ne fii am na gaynde nga ne dama jékki-jékki ba sa ko <laughs> boo du du la jàpp donc ça <laughs> a dugg moom a gënal moo foofu ma ma jox la médecin et tout mm-hmm. mais ñun ñëpp pandémie bi daf ñu daf mm-hmm. donc dañuy def ci investigation dañuy suivre et dañuy moytu tam fake news yi comme ni mm-hmm. ko Sylvie souligné sànq mais je pense que gis nga débat bi juddu ci vaccination bi débat bi juddu ci traitement bi yaa yaa yu benn débat ci chloroquine yaa yu benn débat ci leneen ak leneen mhm. mbas mi daf ñu bett mhm. mu ñëw donc pour man amul benn affaire bu figé bu am instant bi maintenant ce qu'il s'agit mooy que ne les les les le les scientifique dañuy mener ay ay expérience mhm. dañuy def ay constat ce qui lu tax ñu ne woon au début ñoom am nañ seen raison pour dire au début que la femme ne, la femme enceinte ne doit pas prendre le vaccin. Mm -hmm. maintenant euh, il se trouve que depuis je pense quelque parce que troisième vague bi mi ngi fi depuis mais Mm -hmm. depuis quelques mois ñi ngi gis ne que beaucoup de femmes ñi ngi jël non seulement virus bi mais daf leen indil ay complication ci seen ci ci ci ci pour ñu accouché correctement. Mm -hmm. intervention yooyu ñuy def mm-hmm. yaa ngi mettre en danger la ta vie mm-hmm. yow mi jigéen ki mm-hmm. mais aussi la vie de ton bébé donc peut-être que ils ont eu des des d'autres je sais pas ils ont fait d'autres études peut-être que ay kii la rek mais juste pour te dire que y a rien de figé maintenant mbas mi moo ko laaj affaire yi day évoluer effectivement euh, voilà dañuy ñëw rek kon euh, ci seen mouvement bi euh, Ndeye Khady jigéen liggéey jëriñu mouvement la seen slogan nekk parce que nous méritons une mouvement bi lan moo ko tax a jóg. Euh, Sylvie euh, mouvement bi association bi dafa nekk euh, benn kuréel boo xam ne dafay regrouper des jeunes. Mhm. des jeunes yi nga xamante ne ku nekk mi ngi nekk ci liggéeyam di liggéey. Mhm. am na ay journalistes. am na am na am na ñeneen ñu nekk ci yeneen branche mhm. vraiment c'est des jeunes yu nekk ci des domaines diversifiés léegi ñun dañu dañu toog ay ay jeunes lañu ñu nekk Sénégal donc problématique bu am Sénégal daf ñuy intéressé te dañu gis ni que dernièrement l'emploi des jeunes dafi poser problème mm-hmm. on a même eu à organiser des colloques xam nga le président la l'État je veux dire def ay pas entre guillemets dans ce sens ñun dañu euh, euh, nan ka focaliser wu ci kaaw jigéen ñi parce que quoi qu'on puisse dire mooy jigéen ñi ñu ngi góorgóorlu ñii su ñu jàngee ñu ngi jéem mm-hmm. pour dem mais y aura tout le temps des blocages wala mm -hmm. la plupart du temps ñii seen jàng du àgg am na règle am na am na am na yenn poids yu ñu société bi di teg. Mm-hmm. am ñoo xamante ne jaaruñu sax ci banc école. Mm-hmm. léegi suñu jëlee ñooñ ñëpp ñun ñun jël ji dañu jàpp ni que ji euh, association jigéen liggéey liggéey jariñu dañu jàpp ni que toutes les femmes ñoo yem ñëpp ñoo yem mérite ki jaax ci école bi ki ci teel a bàyyi ak ki ci jaawul. Mm-hmm. ku nekk am nga domaine boo xamante ne tey jii bëggoon nga ku la jàpp ci loxo yëkkati la tuuti pour nga avancé te dañuy wax ni que jigéen mooy socle société. tey ji jigéen bu réussir si kër mhm. daanaka mun nañu wax ni que macha allah parce que quoi qu'on puisse dire même bu nekkee sa jëkkër mi ngi indi dafay soxla keneen ku koy jàppale mhm. donc ñun suñu objectif principal dafay intervenir si jigéen ñi d'abord mhm. autonomisation wax nga ko sànq mooy jàppale ñi nga xamante ni bu nekkee ci côté formation je veux dire que volet yi bëgg na mais suñu basé wu ci côté formation y des jeunes fii yi nga xamante ni dañuy jàng ba am bac mais par par euh, faute de moyens wala suivi bu ci euh, jaar yoon duñ ko am ñu obligé tegale seen jàng. Mhm. faute de moyens surtout la ñuy gën a gis. Mhm. donc ñun à notre sens dañuy ut ay partenaires. on mm -hmm. des partenaires yi nga xamante ne daf ñuy facilité mhm. pour trouver des formations à ces jeunes. mun na nekk benn licence benn master mais yaay xool domaine bi la sa tey jii. boo ñëwee gis jigéen liggéey jariñu mu boole la ci listam encadré la. xam nga déjà yow yaa koo jàngal. koo dimbali mu jàng yaa ngi dox pour autonomisation ëllëg parce que kuy jàng bëgg nga liggéey mhm. suñu jógee si ñuy jàng ñu ñëw si jigéen ñi nga xam ne dañu teel a jóge école te bëgg nañ am si luñ bokk mhm. formation professionnelle ñi ngi fi te léegi bu ñu fàtte ne que jigéen ñi dañuy intervenir dans le domaine technique il y a mhm. yi nga xamante ni de plus en plus dañ fa gis ay jigéen donc toujours dans ce sens dañuy ut ay partenaires pour jàppale suñu mbokk suñu rakk yooyu ñu leen di gunge ñu leen di gunge d'accord suñu ñëwee ci suñu ma suñu maman yi ñi gën a mag peut-être ñoom te jaar nañ école yàgg na wala mais ñi ngi góor góorgóorlu ak seen activité personnelle wala activité de groupe ñooñu aussi dañ leen di utal ay partenaires yoo xam ni dinañ leen accompagner ci seen ay par financement mhm. ñu réaliser seen i activité loolu yëpp buñ ko jëlee mhm. ça revient à l'autonomisation de la femme mhm. donc ñun tout ce qui nous intéresse c'est faire de telle sorte que la femme puisse vraiment être autonome financièrement sécuriser emploi am bi muy am ëllëg mais aussi donner ko jox ko assez d'outils pour mu xam moom lan la yor mën ko valoriser mën ci jariñu jariñ ci entourage am. Mhm. am na solo seen euh, euh, kuréel bi kañ ngeen ko créer yàgg na. noo yàggul noonu parce que ñu ngi ko créer en novembre deux mille vingt bii. Mhm. novembre deux mille vingt bi daal. amagul at ko teg en place non non amagul mhm. at. ñaata membre ñoo nekk ci biir. bon pour le moment on n'a pas benn bureau élargi parce que comme ni ma la ko waxee. c'est des c'est des c'est des c'est des travaux qui se font dañuy mm-hmm. dañuy dañuy soog a dal y des gens qui sont intéressés certes mais on a presque une dizaine de membres pour le moment. Mhm. ñu ñu yore bureau bi restreint mhm. vraiment di ci liggéey ñu am comme présidente Khadijatou jotu d' mhm. ailleurs moom moo wagoon ñëw fii. mais comme dañuy waajal benn activité. Euh, elle vraiment euh, un peu débordée. donc ñu ñëw jël place am activité boobu sax euh, d' dinañ ci ñëw. Euh, ba ngeen tàmbalee ba léegi euh, ñaata femme ngeen jot a former ak si domaine ngeen di former le plus jigéen ñi surtout ñi nga xam ne jotuñu jàng école. Euh, xam nga yaa ko wax sànq bi ñu commencé ak léegi ça fait pas encore un an. Mhm. donc bi ñu commencé c' est vrai que suñu plan de départ c' former les femmes. Mhm. c' était appuyer la femme pour mu auto am autonomisation mais on s' est rendu compte de benn phénomène bu xaw day doy wax suñu société. Mhm. mooy que ni ñi nekk si biti. ñi ñu mën a former ñooñu ça existe mais dafa am suñu yeneen mbokku jigéen ñoo xam ne yoon dafa teg si ñoom loxo. Hmm. te ñooñu waruñu leen fàtte donc ñun on a pour quoi pas avant ñuy dimbali ñi nekk fii ñu jéem a orienter suñu activité si ñooñu mooy les femmes détenues donc bi ñu commencé wee euh, dañu dañu choisir. instant yi nii nii nii venir en aide à aux femmes détenues dans les prisons mm-hmm. loolu la ñu commencé gun pour le moment mm-hmm. formation yi mën nañu wax ni que dañ def dañ ko def benn stand-by mm-hmm. pour nous concentrer pour le moment sur les femmes détenues euh, lan mooy seen activité ci femmes détenues yooyu noonu voilà je pense que wax nga ko sànq am na benn activité bu ñuy bu ñuy dëgmal mais avant boobu am na beneen bu ñu defoon mooy ci prison Rufisque dañu dafa lancé woon benn collecte de dons pour les femmes détenues mm collecte de don boobu ñun avant ñu koy lancé dañuy dem gis euh, waa prison bi laaj leen femme détenue yi fa nekk lan la ñu soxla ak ñoom tey jii bu ñu doon wax lan lañ bëgg lan lay doon ñoom dañuy defal liste collecte de don boobu ñuy lancé dañ ciy jënd matériel yi ñi bu ma jëlee exemple Rufisque ñoom dañ ñu waxoon ay matelas ak li jigéen di soxla xam nga jigéen dafa bëri ay bagages yoo xam ne d'habitude nit ñi duñ ci bàyyi xel. Mhm. doy ni Euh, li muy xam nga ay mm-hmm. serviette hygiénique mm-hmm. des fois ñu yoraale doom ci prison bi mm-hmm. xale bi dina soxla couche dina soxla yenn effet yi donc c'est dans ce sens là ñooñ ci loolu lañ ñu ci loolu lañ ñu sollicité woon muy ay matelas ay ventilo y'en a même qui demande des télévisions why not buñ ko nekkul nekk nekkuñu si biti rek amuñu droit yenn yi ce sont ces articles là yi ñuy soxla donc ñun suñu lancé suñu collecte de dons ñu ànd seeg suñuy partenaires vraiment yu ñuy aidé yoo xamante ni bëreeguñu doole certes mais ñu ànd ak ay partenaires yoo xamante ni ku nekk ak ci domaine bi mu nekk mi ngi ñuy dimbali yaa naa ki doon des dons en nature mhm. ñuy doon joxe ay yére yu mhm. bees am ñuy joxe matériel am ñuy joxe lekk am ñuy joxe lu nekk donc yooyu la ñuy dajale ñun booleeg suñu effort bopp yu yu euh, association bi du mettre en place parce que mhm. ñun tamit dañ siy dugal suñu xaalis da ngeen cotiser dañuy cotiser chaque mois on cotise membre yi fa nekk c'est c'est day continuer chaque mois y a pas de chaque mois on cotise donc déjà suñu kees dafay am dara mais à chaque fois ñu lancer collecte de dons. Mm. on va voir responsable prison bi. Mm. demander lan lañ soxla ñu jënd ko après ñu yóbbul leen ko. Mm. et je pense que bokk na si. man boog man Ndeye Khady bokk na si réalisation yi ma gën a neex sama àdduna. Mm-hmm. parce que dimbali ki ko soxla. Mm-hmm. amul amul activité bu ko gën a noble tey. te ces femmes la elles ont besoin d'aide. Mm-hmm. dañu soxla ñu leen di bàyyi xel dañu soxla ñu leen fàttaleen dafa yomb. seeni mbokk du nekk lu leen gënal sax mais économiquement parlant ñun dañu xaw a sooxe ci benn côté bi mm-hmm. da ngay am sa mbokk mu nekk foofu di nga bëgg di fa dem tout le temps mais du mën a nekk di nga bëgg peut-être di ko yóbbu lim soxla yëpp du mën a nekk ñun ñiy yëngu ci domaine bi nag ñu ne pourquoi pas ñun tam ñu apporter suñu aide. Mm-hmm. am na waaw voilà donc euh, ñu lu ñoom liggéey bi ñuy def. je pense mhm. que euh, jàppale nit rek avant avant ñoo waxu waxu jigéen ñi. Mhm. lu am solo la donc ñoom ma euh, ma gis seen turu kii bi je pense que lu mu tudd. jigéen liggéey jariñu jigéen liggéey jariñu. bon xaw ma ndax loolu ñu ko waxee noonu lañ ko defee wala boo dañuy def liggéey yàq comme ni ko suñuy suñuy seen yaay defee. Mhm. donc li ma bëggoon xam rek mooy yéen seen idée fan la jógee ba ngeen ne fi mu nekk nii foog ngeen jug ngeen ne. au lieu ngeen ne ñun jeunes yi mais da ngeen ne femmes yi ngeen di jàppale parce que buñ ne buñ ne seen groupement bi. y' a y' a des jeunes ay jigéen kese la non jigéen kese. am na am na ay góor am jigéen. Euh, ay xale lañ ñun ñëpp certes. Uh-huh. mais am na góor am na jigéen uh-huh. quand même. léegi man li ma bëgg xam mooy uh-huh. idée bi fan la jugee lan lan moo leen inspiré ba ngeen ne fi mu nekk nii foo ngeen jug taxaw. ne da di jug jàppale jigéen ñi d' abord. si li nga xamante ni moom mooy seen waadru liggéey parce que boo nee autonomisation je pense que nit ki pour mu demal boppam la mhm. donc fan la idée bi jógee parce que nekk nekkul la ngeen tëb tëb tëb nii rek mhm. def ko wala am na leen lu leen inspiré ngeen xëy benn jour rek ne mhm. lii moom est-ce que duñ taxaw léegi léegi léegi lii te aussi leen li ma bëgg a xam mooy ndax ñi nga xamante ni ñu ngeen ñëw di leen jàppale ndax da topp da topp ñooñu

quand on parle de l'emploi des jeunes dafay dugal ñëpp muy góor muy jigéen mais ñun à notre niveau euh, xam nga niñ ko xam nga ñuy ànd ñoo mën a bokk ay idée hmm. donc ñun ñëpp c'est vrai que ñëpp xamante wuñu mais la majeure part euh, la majeure partie d'entre nous on se fréquente donc ay ay ay ay ay euh, nan lañ ko waxee ay projets yu ñu yàgg nourrir non pas koñ hmm. milieu professionnel moo ñuy boole la plupart du temps des fois nit mooy xam nit da ngay ah, bokk ak nit bërëb liggéeykaay ngeen yàgg wax ci ku nekk lan moo nekk sa bëgg-bëgg parce que lu nekk xam nga lii projet la. Mhm. je dis projet de de de vie la sax parce que tey ku xam Ndeye Khady xam ni que moom. c'est pas de féminisme wala même dama mës a man dama mës a gis gëm ni jigéen dafa dafa dafa war a mun autonome dafa war a mun yor dafa war a mun demal boppam demal boppam voilà léegi soo tasee keneen koo xamante ni mi ngi xalaatee ni yow ngeen waxtaan tey jii euh, idée juddu fa donc voilà ji noonu la juddoo ci mille professionnel la ñu xamante la plupart mais ñu partage vraiment le même désir mhm. les mêmes euh, idées par rapport ak autonomisation de la femme par rapport ak la femme nan la war a doxee lan la war a mën dundee mhm. tey jii ma ñëwaat ci problème emploi des jeunes ñëpp la dugal mhm. mais ñun fii lu mu bon bon bon Sénégal tey jii bu ñu nee jigéen ci rédaction yi wala jigéen ci entreprise du ma ne góor yi amuñu problème de parce que tout le monde a des problèmes mais jigéen ñi ci lay ëpp parce que la plupart du temps dañ naan jigéen ñu amuñu amuñu xam-xam. Mhm. benn étiquette la buñ ñuy collé. Mhm. mais tey jii su nekkee ni que da nga bëgg a dimbali nit te yow jàngaloo ko amul xam-xam nga ne rek dama ko bëgg a jox xaalis mu def euh, activité comme ni nga ko waxee amul suivi amul dara. Mhm. mais xaalis bi dafay seey. mais ñun dañu bëgg di commencer par la formation. suñ la formé wee ba pare wax la xam nga yow déjà boo trimé ki lay formé wax la yow nga gisal sa bopp. après nga xam lee débouchés yow di nga xam ci lan nga taxaw ak nan nga ko war a gérer du euh, le suivi bi ngay wax nekkul ni que dañ lay former rek après ñu ne la ça va demal demal non non déjà ñëwaguñ ci activité yooyu mais on prévoit gis na bu ñu la former ba pare suñu mënee dox sa insertion dans le milieu professionnel dañ koy dox def suivi bi mm-hmm. de sa fait jàng jàng nga am nga sa liggéey mm-hmm. mais au cours de cette formation là jël ji li ko ci ëppal solo mooy wax la yow ci sa njariñu li ngay def nii mhm. nga xamal ko sa bopp du nekk lu ñu lay forcer yow yaa koy gisal sa bopp nga dund ko mhm. yow yaa koy bëgg di doxalal sa bopp euh, lan moo nekkoon deuxième question bi déjà non je pense que euh, kii nga mais mais mhm. ñooñu nga xamante ne demoon ngeen parce que nañ dem ngeen ci prison ah, bu kii bu prison yi mhm. mais est-ce que aussi dama ngeen toppaat ñi nga xamante ñoo ne fa parce que euh, boo nee formation aussi am na leen lu jiitu muy conscientisation yi nga xamante ni mhm. ñoo nekk ci yenn bërëb yi mhm. euh, lu ci mel ne jigéen ñooñu am na ñenn ñoo xamante ni peut-être que euh, njumte moo leen fa dugal am na ñenn ñoo xamante ni délinquance moo leen fa dugal am na ku nekk la la fa dugal est-ce que demaat ngeen aussi di jéem a au moins ngeen di collaborer ak chef de prison yooyu ngeen ah. jéem ñëw toog di waxtaan ak ñoo ñu ñuy leen di wax seen lan moo leen ah, fi andi pour au moins bu ñu génnee au moins mën a xam ne diw prison bi la nekkoon lii lañ ko mën a jàppale kii pour bu génnee mu mën a insérer wu en fait pour les prisons demaguñ ci formation hmm. pour les prisons instant bi suñu suñu taxawaay si ñoom mooy dimbali leen rek di leen jox li ñu soxla ñoom hmm. ci foofu lañ tolloogun ak ñoom hmm. Rufisque lañ demagun jox ko je rappelle que c'est une association très jeune quand amagul un an mhm. mais ñi ngi góorgóorlu di di jéem a teg ay plan donc Rufisque lañ demagun laaj leen lan lañ soxla ñu wax ñu ko ñu lancé collecte de dons jëndal leen ko mhm. muy ay ventilateur ay matelas ak ak yeneen produit yeneen yeneen lay dem si lekk day jëm si détergent yi ñuy soxla xam nga jigéen moom fu mu munti nekk soxla naa mhm. yaa ma gën a xam léegi instant bii ñi ngi prévoir pour dem Saint-Louis ma bi fexe tuuti dugg ci suñu prochaine mm-hmm. activité ñi ngi prévoir pour dem Saint-Louis ak Ziguinchor ce 14 là mooy samedi prochain incha allah on prévoit d'aller à Saint-Louis ak à Ziguinchor on re, on prévoit de reproduire le même schéma ak Rufisque mm-hmm. ñoom tam dañ leen woo muy ñaari prison yëpp mm-hmm. laaj leen seeni besoin ku nekk def liste ne lii lañ bëgg ñu lancer suñu ñu lancer suñu collecte de dons ak suñuy moyens yu maigre yi ñu am pour le moment ak ànd ci ak suñuy partenaires partenaires yu bëri macha allah yu ñuy appuyer selon ci ku nekk y en a qui donne des des des des en nature mm-hmm. am ñi nga xamante ni dañuy gis euh, visuel bi gis sa numéro woo la mm-hmm. am ci enthousiasme boo xamante ni yow sax après affaire bi daf lay jaaxal. wala no euh, politique pas pour le moment. Mm-hmm. parce que on n'aimerait pas euh, vraiment. politiser ko voilà. mu am récupération mais du ñàkk ñenn ñoo xamante ni dañ leen bëgg a jàppale mais ce mm-hmm. sont ce sont des personnes politiques. Mm-hmm. mais da ngeen di da nëbbu casquette politique kooku. non pour le moment. Mm-hmm. pour le moment moom vraiment. vraiment mais man bu ma ñëwee yëkkati benn <laughs> benn un million ne la maa leen bëgg na nekk juste que ne yow li la intéressé mooy que ni dimbali. femmes yooyu ah, nañu bokk même objectif. ndax dinañ ko tudd loolu ça en en tout cas ku récupérer suñu activité la ñuy bañ mm-hmm. j'ai pas de récupérer sax mais ku nëbb ñun li ñu tax a jóg mm-hmm. parce que tey jii ñun mënuñu mënuñu mënuñu programmer ne dañuy dimbali suñuy sœur mm-hmm. après benn benn politicien jóge fee peut-être def si benn benn somme après récupérer ko mais tant que même objectif la am ak ñun je ne vois pas je ne vois pas le problème sincèrement mais fi mu nekk ni kon euh, kii Rufisque ngeen jëlagum Saint-Louis Ziguinchor kon ñëwagoo leen defaguñu def nañu Rufisque Saint-Louis la ñuy dem ak Ziguinchor 14 bi. Mhm. incha allah ñu ngi si ci ci ci ci dernière ligne bi. Mhm. ñu ngi dajale li ñu jot a am ñu ngi demee normalement war nañ dem jënd ji matériel yi ñuy soxla et mhm. donc pour dañuy xaaj association bi en deux équipes. incha allah loolu lañ prévoir benn équipe bi dem Saint-Louis yóbbu les dons beneen équipe bi dem Ziguinchor yóbbu les dons. et pour Dakar. pour Dakar. dama commencé je pense que dama waroon commencer pour wax ni que suñu objectif mooy def le tour des des femmes. donc euh, Saint-Louis Ziguinchor Rufisque le lieu ça n'a pas trop d'importance mhm. tout ce qui importe c'est de venir en aide nos sœurs détenues mhm. voilà donc dans un mois peut-être dans deux mois on pourrait aller dans une autre zone xool lu ñu fa mun a def aussi d'accord Ndeye euh, Khady euh, collecte de dons yi ngeen def pour euh, prisonnières yi am mhm. na lu am solo la mais tey ngeen foog ni tey former femmes yi nekk ci biir prison yi Euh, gënul am solo parce que booy xool jigéen la plupart lan moo leen di dugal ci biir prison yi. Mhm. peut-être sàcc la détourné xaalis. Mhm. wala prostitution wala mhm. yeneen ak yeneen. bëri na tey loo xam ne euh, sans euh, am na rapport ak xaalis loo xam ne mooy jugal jigéen. ci biir prison te mën na am sax bëgg ko woon a def. da koo def benn yoon rek ñu jàpp ko dugal ko. tey boo leen demoon ci prison yi ngeen defal leen formation. wan leen yoon bi nga xam ne noonu lañuy def ba am liggéey am lu ñu mhm. suturloo nga foog ne mhm. loolu euh, gënul don yi nga parce que don yi baax na lu ñu soxla la parce que mhm. nit ki bu ko soxlaa nga jox ko ko loolu baax na mais euh, day jeex day jeex waa Sylvie comme euh, gis nga lépp dafay déparé si ñun li ñu li ñu tax a jóg xam nga tey jii jigéen mu nekk xale mu nekk mag mu nekk si biti libre am droit dox am droit wax am droit dem am droit ñëw kooku boo ko jàngalee mu am liggéey nga wax ko importance liggéey bi wan ko lan la ko liggéey bi di jariñ waxuma ne du def erreur mais yàlla mun na ko suturaal. Mm. donc ñun déjà mun nañu wax ne suñuy activité dafay lutter à ce que sax la femme di dem si yenn dérive yi bay dugg prison. Mm. premièrement deuxièmement yaa ngi wax ne que bu ñu formé woon femme yi si prison bi. Mm. lu war na mën a nekk la peut-être bu ñu discuter woon ak euh, euh, administration pénitentiaire pourquoi pas. mais comme ni nga ko waxee don yi day jeex mais dañ koy soxla en fait te d'habitude comme ni ma la ko waxee seen parents yi du nekk lu ñuy bañ mais loxo moo dul jot ginnaaw tey jii soo bëggee gérer sa dépense su kër bëgg gere am sa benn mbokk bi yàlla teg nattu ñu denc ko nga ni yow jigéen ku ne xam na ni dafay soxla yenn bagage chaque mois. Mhm. bu dul du luxe mais loolu la c'est naturel on en a besoin mhm. tey jii ku jigéen kooku su ko dëgg la dañu def erreur ñu tëj leen. mais tëj boobu dafa war a nekk lu leen di yar warul mm-hmm. nekk lu gën a mm-hmm. yàq ku jigéen ji mm-hmm. donc ñun suñuy doom dafay intervenir dans le cadre de d'assister la femme dans la prison léegi nag mun nañu mën nañu élargir activités yi dem si formation dem si conscientiser leen mais d'abord on t'assiste ak li nga soxla maintenant après nag ñu soog a euh, réfléchir ci yeneen perspective ak man xam nga xaw naa comprendre fii Sylvie di waxee moom mooy mhm. comme ça jigéen bi nga xamante ni nekk na nekk na prison mhm. amul dara lu muy def donc ki nga xamante ni formé nga wax si biir prison bi mhm. comme ça peut nga ni formé nañ ko en cuisine mun na au moins moom di togg ci biir cuisine bi waa administration di ko fay loolu mu au lieu ngeen ñëw à chaque mhm, fois leen mhm. leen jàppale xaalis boobu ngay fay mën na ko def activité utilisée mën na continuer xaalis boobu ñu ko koy tegal fenn di ko di ko fay muy liggéey mhm. keneen ki xamante ne ay ay lay defar muy defar ay napp di génn yéen au moins yéen sax mooy nga defar la promotion de seen napp ñu naan personne bi nekk prison diw moo defar diw maanaam bu génnee au moins am na lu mu jàng ci biir mais bu génnee am na lu muy téye loo xamante ni déedéet waaye da ko fa jóge woon. Euh, waaw du dagguma la seen biir prison wu saint bi dañ fa war a dem sa 14 sa 14 août xam nga ci seen liste yi ñu soxla ñoom lan daf si bokk. Mhm. tout à l'heure on en mooy malikaan malikaan ak wëñ yi jigéen ñi di ñawee mhm. drap yi. Ah. pour wax la ni que même ñoom ñu seen bopp et que ñun même don bi lu mu minim minim tey ji je pense que ñun ñu ngi participer ci seen formation wala ci ci seen euh, xaw ma nu ma ko mën a waxee en wolof ci luy dëgëral mhm. euh, liggéey bañ fay am ñoom tey. parce que tey jii jigéen bu nekk prison nga dem nga laajte lan ngeen soxla mu ne la man de malikaan laa soxla ak wëñ pour ñaw xam nga kooku bàyyiwul boppam. Mhm. am nay activité mhm. c'est vrai que defaguñu demaguñu ci perspective bu former leen ñoom. Mhm. dans la prison. mais man je pense que JLJ mi ngi intervenir ci cadre boobu. boo demandé ñu ne la lii laa bëgg nga jox leen et puis liñ bëgg liggéey la. parce que j'imagine que ñun ñoom bu ñu laajee dara. ñu jëndal leen dara jox leen ñu siy tëdd. ñu laajaat ñu malikaan ak wañ pour ñaw j'imagine que euh, ño wañ boobu ak dara boobu ñu ñuy ñuy confectionné. Mm-hmm. c'est pas pour tëdd si. Mm-hmm. c'est pour ñaay euh, ko wala pour doxal activité yi. Mm-hmm. maintenant nag mun nañ élargir perspective yi comme ni ma ko waxee. jàppale leen si yeneen affaire mais pour le moment daal ñun dañu jàpp ni que lu ñu soxla ñu dem jox leen ko. nam ngeen leen jox am na solo ba tey nga ñëwaat ci seen projet yi daanaka une dizaine de minutes moo ñu desal seen projet yi seen programme. Euh, projet wu GEL ji dañ koy tënk ci autonomisation de la femme. Mhm. mais day jaar ci formation day jaar ci assistance day jaar ci suivi parce que comme li ko ñëpp xamee du dañuy jël di jël jigéen paquete ko teg fee jël góor paquete teg fee. Mhm. mais suñu société moo ñu tëddee moo ni tëddee da ngay nekk jigéen dès le day am lu la wax. da ngay nekk jigéen dès le bas âge day am lu la war mooy mi ngi ñëw sànq ci affaire vaccination yaa ngi naan am na ñoo xam ne seen borom kër moo leen di tere ñu dem vacciné wu ci mm-hmm. donc ñun noonu la cër boobu la ñu yàlla jox ci ci ci ci kaw suuf te je pense que ñu ngi koy jéem motal donc jigéen dafay am plus de problème dans le milieu de travail les hommes en ah ont mais jigéen ñi la ñuy gën a gis ne que dañuy am des euh, problèmes dans leur milieu de travail jigéen ñi la gën gis ne que dañuy arrêté jàng dangay dem dugg si waañ bi wala leneen. Mhm. donc ñun dañuy jël ñooñu ñëpp jël ji dafa jël ñooñu ñëpp mu boole leen pour wax leen ne que ci société bi ngeen bokk ci ñi war a doxal dëkk bi ci ngeen bokk. c'est pas mhm. parce que on a arrêté l'école mhm. qu'on ne peut pas être euh, vraiment parmi ceux qui développent le pays c'est pas parce que dañu dañu dañu yoruñu. million comme mënuñu bokk suñuy développer ah. dëkk bi. ah boo million te bu ko yàq ci benn ngoon tamit nag. non yàq bi je pense que jigéen ñi ñu si bëri bokk. dépassé ah, nañ pe kii boobu yàq ba léegi de. non je pense que nit ñi. léegi conscient consciente nañu. ci lu bëri conscient amoon na mais fi mu nekk di ak nouvelle génération ma gis nii. Hmm. pour ñoom euh, il faut jël xaalis. non des brebis galeuses moom yaa naa partout. yaa yaa naa ñi nga xamante ni dinañu dinañ continuer. Hmm. di folklore yaa hmm. ñi nga xamante ni. kenn mënu ko bañ. Hmm. société moo ni tëddee mais est-ce que yéen di ngeen dox si loolu parce que fi nekk nii boo nee boo nee folklore jigéen ñi nga xalaat Sénégal moom mooy jigéen ñi. ñun daal ñun daal moo wax te jigéen a bëgg folklore xam xam ndax yéen seen seen kuréel gi ndax yéen <laughs> euh, peut bokkoo leen. ci ci ci ndax am na si tamit xale di yoon soko soko non ñun dañu considérer que ni. Hmm. buñ la formé ah, hmm. nga jàng yow nga liggéey nga sonn ci am sa xaalis. bu la neexee jëriñu bu la neexee jariñu sax mais vraiment bala nga koy dugal. fenn di nga réfléchir sa xaalis la quand même non ak yàq bokkul de. non du tudd yàq. Mm-hmm. ñoom peut-être duñ ko tuddee yàq. mën nga am sa xaalis nga yàq ci benn ngoon mais pour man daal tout dépend de de de la mentalité de la personne mm-hmm. Mm-hmm. tey jii mënuñu mënuñu ŋàññ ñi koy def mais ku nekk ak sa sa sa vision aussi en tout cas ñun tout ce qui nous intéresse c'est de mm-hmm. former nos <laughs> nos jeunes sœurs suñuy moroom xam nga yow da ngay da ngay góor man da ngay góor munoo comprendre tabaski bi tabaski bi kenn jënd lu ma xar kenn jënd lu ma yi lépp maa ki jigéen ñi fee lañ toog lépp yaa ko jënd mais non ñun tam dañuy dañuy liggéey di uh-huh. génne suñu poche di jënd ay xaar même suñu amee borom kër ba ñu ko defal jënd mm-hmm. pour jox suñu yaay wala jënd suñu yaay wala sax ah. jënd pour borom kër gi am soxla nga làmb sa poche fajal ko sa bopp dafa neex moo gën ngay tànnal li <laughs> nga xam ne dara lu dul naqaral la lañ fi nekkee <laughs> en tout cas daal ba léegi xaw ma ndax seen kuréel boobu ndax ñun doxuñu si loolu di ñi naa leen ah sama yaay boobu boo ma sañoon ne bu la formé pare boo amee sa xaalis jël sa xaalis nga investir ko sa au moins jëlal benn loolu mooy suivi bi ah? parce que suivi bi mu ngi jëm ci tey jii li ma lay wax rek xam naa dama ko dangeen ngeen comprendre mais tey jii yow boo sonnee ci am dara. Hmm. par exemple ñiy def ay transma transformation yi. Hmm. saka yàlla wala leneen lu mun ti doon. Hmm. yow nga xëy nga jóge sa kër nga ñëw sa bërëbu liggéeykaay nga sonn nga ñaq nga kërti kërti. nga liggéey tey jii ji bu la financé. mais du la jox xaalisam rek nga dem même bu la booleeg partenaire dina def suivi bi mm-hmm. yow tey ji su la wóoree ni que fin du mois bii war nga wax vaccin tel wala war nga def nangam wala war nga présenter telle garantie mm-hmm. di euh, di nga bàyyi xel à beaucoup de choses ah, encore encore tu l'as suivi c'est vrai suivre nga ko waaw mais man suivre bi ma bëgg wax moom mooy

ñu yeggali question yi <laughs> concernant xam nga yaa ngi wax euh, sànq euh, emploi de la jeunesse. Mm-hmm. Euh, est-ce que loo leen di def pour jigéen bi nga xam ne jàng na ba ay diplôme am. Mm-hmm. mënul am liggéey stage sax. mënu ko am est-ce que dangeen di def ay projet ci genre yooyu. voilà xam nga tey jii mënuñu ne dañ lay defal insertion sociale euh, insertion mm-hmm. professionnelle ci entreprise u jàmbur. mais ñun dañuy accompagner mais ouais, à travers vos partenaires. à travers nos partenaires certes mën na nekk. mais tey jii li ñu gën a yitteel mooy. Euh, bu ko am sa projet tey jii boo tëggee sa projet ñun mun nañ la accompagner nga autonome nga teg sa projet doxal sa entreprise ubbi ko de sa fait yow non seulement di nga jariñ sa bopp mais di nga di nga polariser yeneen jigéen yoo xam ne tey jii yow di nga leen jariñ donc emploi des jeunes bi pour ñun on ne tout attendre de l'État mm-hmm. on ne peut pas croiser les bras toog fii di naan non euh, dama wa administration dëgg la privé bi c'est bien mais surtout employé c'est mieux parce que tey jii nga li nga wax sànq nga soxla nga làmb sa poche nga defal sa bopp dafa am solo. Mm-hmm. entreprise yi ñu jël ñëpp. Mm-hmm. même suñ la jëlee ñun gis nañu salaire yi dérisoire yi mm-hmm. yi am ci entreprise yi mais tey jii da ngay gis jigéen boo xamante ne euh, elles sont parties de rien ñu doxal dañuy teg benn tontine def ci benn projet yàlla. jàpp si alhamdulilah dañuy dem bay employé des des des dizaines wala des centaines de de de jeunes femmes. Mm lépp mi ngi ñëw dans ce sens mun nañ la jàppale nga jàng mais soo paree soo amee sa projet GIE dafay taxaw pour appuyer la pour nga mm-hmm. teg sa entreprise. et pour quelqu'un qui a benn formation boo xamante c'est c'est pas facile d'être euh, accompagné si ngeen ko wax est que ngi mën def ay genre orientation yoo xamante ni peut man mii euh, sama rakk bu jigéen am na bac. mi ngi soog am bac. Mm-hmm. ñëw ne ah am bac wala boobu mi am def formation. ngeen xelal ko c'est des perspectives yu ñuy yu ñuy yu ñuy nekk di di di di di di jàngat et tout mm-hmm. comme ni ma ko waxee sànq on est une association très jeune on n'a pas mm-hmm. encore un an mm-hmm. donc ñu ngi ñi ngi élargir suñuy perspective ñu ngi xalaat si lépp lu ñu mën a dimbalee jigéen c'est vrai que ni que ça soit ki am euh, ki jàngul ki jàng ki soog am bac ñëpp soxla ñu orienté leen ñun ñi sax des fois on en a besoin donc ñun peut-être du nekk ñun mais dañuy am ay partenaires yoo xamante ne seen xel day màcc ci jëm jëm ci loolu donc ñun mun de la si suñu façon mooy boole laag nit boo xamante ne wala boole laag organisation boo xamante ne tey jii dina la mën a wax tegal fii sa tànk tegal fii sa tànk. voilà ci noonu lay. Mhm. noonu lay demee euh, xan ma bàyyi la nga lancer appel peut-être ku bëgg a bokk tey ci association bi naka lay def ak ku bëgg a doon partenaire. Mhm. Euh, pour euh, association bi c'est simple. Mhm. c'est vrai que ñun ñoo ko xalaat suñu biir ñu teg ko mais ñi ngi. on a vu que ñu bëri affaire bi daf leen intéressé y a beaucoup de gens qui appellent pour voir comment ils peuvent faire pour adhérer mm -hmm. donc on a prévu euh, d'élargir yi comme ni ñu koy waxee tey jii ku soxla mun nga ñu approché wu mais balaa loolu dama bëggoon lancer benn appel par rapport ak suñu activité wu le 14 bi mhm, ces femmes détenues dañu soxla ñu leen dimbali dañu mhm. soxla ñu leen bàyyi xel femmes yëpp ñoo soxla ñu taxaw leen c'est pas parce que maa ngi fii libre naa tey que yàlla mënuma teg nattu ëllëg mhm. ça parce que tey yaa ngi prison que da nga bon ça parce que yaa ngi prison que dañ la war a bàyyi ginnaaw dañ la war a kii ñun ñëpp dañu war a jàppalante ñu dem donc pour don yi du lu ñuy du du du lu ñuy ndamoo wala mais dañuy xool suñuy sœur lañu suñuy suñuy suñuy suñuy jigéen suñuy maman yu fa xamante ni yàlla moo leen teg natt ñu nekk fa ñu dem recenser ñoom li ñu bëgg ñu ñëw te comme on a l'habitude de le dire un bien fait un bien fait n'est jamais perdu mm -hmm. et donner ça agrandit l'âme mm-hmm. donc képp ku si ku si mun jàpp ñu ngi lay woo c'est vrai que ne c'est un peu juste on a que deux jours grand max on doit yi ñu soxla et tout mais rien n'est encore trop tard mm-hmm. ku si mun jàpp nga jàpp si donc euh, suñ ma mënee may tuuti ma joxe numéro mm-hmm. suñu trésorière moom euh, les dons en nature suñu woowee si affiche bi dafay daf koy jël euh, excusez-moi. Mm-hmm. Euh, ça va prendre un petit moment. léegi euh, suñu suñu suñu suñu trésorière moom mooy mm-hmm. chargé wu di jël les dons. Mm-hmm. donc ku mu nekk moom la ñuy woo voilà ku bëgg joxe don man mii soo ma woowee parce que suñu numéro moo nekk ci affiche bi. trésorière bi son numéro c'est le 77 699 14 02. 77 699 14 02. am na ñuy def dépôt Orange Money am mhm. ñuy def Wave. Mhm. Euh, man mi sama numéro soo ma woowee je me. Mhm. je coordonne ak yow. am na ñu may jëli seen i dons en seen kër am ñoo xam ne dañ ma koy yónnee am balaa noonu la ñuy def di dajale li ñu am donc képp ku si ku si mun jàpp ñu ngi lay woo ñu dimbali suñu sœur yooyu bàyyi leen xel taxawu leen. léegi ku soxla ngeen dimbali ko ku bëgg a bénéficier wu ci seen formation. ku bëgg a suñu formation. da ngay woote ci sama numéro. Mhm. le 77 384 98 32. ñu waxtaanee ko suñu biir. Mhm. xool dans la mesure du possible ñun nan lañ mën accompagner parce que duñ dañuy liggéey ak des partenaires. Mhm. il faudra aussi ñu jël avis wu partenaires yooyu. il faudra ñu xool lan lañ mën ak lan lañ mënul mënuñu promettre lépp mais mën nañ si jàpp peut-être. mais en général domaine yëpp ngeen di former jigéen ñi du. domaine bu leen di faral di. wala lu ñu bëgg. li ñu bëgg ak li mën a nekk xam nga tey jii mënuñu ne ku ñëw rek mën nañ la dimbali si li nga bëgg mm-hmm. mais boo ñëwee nga fekk li nga bëgg mi ngi fi mm-hmm. dinañ si taxaw boo ñëwee nga wax loo xam te ne tam mën nañ si taxaw ñun dinañ si taxaw mm-hmm. incha allah femmes ñoom la ban formation la ñuy gën a demander le plus bon pour le moment comme ni ma waxee ouvrir guñ volet boobu donc mais ci ci connaissance générale yi ñu am on sait que ne ñu ñi ñi bàyyi école comme ni ma ko waxee a beaucoup de femmes qui demandent à faire maintenant Euh, ñi nga xamante ni peut-être ñi ngi jàng ba léegi ñi ngi intéressé wu ci communication ñi ngi intéressé wu ci marketing ngi intéressé wu ci yeneen yeneen domaine mhm. ñi nga xamante ni tam ay mag lañu c'est plus des financement yi nga xamante ni daf leen di permettre ñu assoir benn activité par exemple euh, def ay transformation euh, créer ay affaires def comme ni ñu ko waxee teg leket seen seen mhm. koñ day nekk comme genre comme ni ñu ko daan gisee mbootaay voilà mhm. comme genre mbootaay ñooñu dañuy soxla ñu leen di financer ñu def seen i activité accompagner leen voilà pour la moment loolu moo fi amagul. Mhm. moo Fall boo amul question ñu tëj. waaw question bi jeexale ba si affaire partenaire est-ce que vous vous êtes rapproché du ministère de la santé lu ci mel ne fondation Servir le Sénégal euh, ñu ci mel ne ñenn jigéen ñi nga xamante ñoo jiite yenn kuréel yu mag yi ku ci mel ne euh, Thérèse Faye bi nekk FONGIP est-ce que jigéen jege genre kii mag yooyu kii ngi seen liggéey yéen jigéen ñu mën si dañu nekk di liggéey ak suñuy partenaire direct mm. rek pour le moment ay mm. partenaires yu yu privé lañ nekk di liggéeyal mm. c'est vrai que commencé commencé nañ quelques démarches ak institutions yi mais il y pas grand chose pour le moment. mais jëm nii jëm ngeen ci euh, rapproché ñooñu. am na yu ñu tenté ça n'a pas abouti fondation Servir le Sénégal euh, je pense pas parce que bokk na si ñu ciblé woon. Mm-hmm. mais dafay nekk temps bu juste. Mm-hmm. donc am na ay ay démarches yu ñu ab yu ñu commencé woon. Mm-hmm. mais aboutirul mais du ñu taxaw bu ñu paree si lii am nañ yeneen activité am nañ yeneen yeneen yeneen activité ñu war a développer. Mm-hmm. donc dañuy continuer merci Ndeye Khady ñu bàyyi la nga tàggatoo heure bi jot naa. Euh, maa ngi leen di gërëm Sylvie ak Mor. di gërëm képp ku déglu émission bi di ñaan euh, suñu mbokk yëpp ku si mun jàpp nga jàpp si. la l'association jigéen liggéey jariñu mooy def appel boobu mhm. di ñaan képp ku mun dimbali suñu sœurs yi nekk ci prison euh, Ziguinchor ak Saint-Louis dañ leen war a dem seeti ce 14 août yóbbul leen des dons mhm. c'est pas encore trop tard et un bienfait n'est jamais perdu mhm. merci beaucoup Ndeye Khady Diouf chargée de communication Euh, jigéen liggéey euh, jariñu parce que nous méritons une autonomie association bi am na solo vraiment ñu ngi leen di souhaiter bon vent na partenaires yi gën a bëri daal. Euh, pour ngeen gën a mën a jàppale jigéen ñi ndax ñu nekk autonome moo faal. waaw xanaa di ko jaajëfal lekk je pense que c'est pas évident donc mu ñëw nii rek te je pense que am na keneen ku woon kii mais je pense que nu mu demee rek ñoom ñoom la seen biir. Mm-hmm. donc di leen ñaanal lekk li nga xamante ne moom mooy seen mission ñu réussir ko. Mm-hmm. di euh, dajale yàq donc nekk jëriñu donc donc di jaajëfal ñëpp di euh, ñaan aussi bisu tay bi rek comme ni ko waxee bisu xasida bi ñu ko ubbee woon yàlla def jàmm ci euh, Sénégal mbas mi jóge fi ba ñu jàll ci yeneen nekk ci yeneen mbir ñoom di aussi si bi ma lay jaajëfal aussi merci Mor Fall merci Ndeye Khady di gërëm Adama mu fette woon ci machine bi di gërëm mbooleem mbokk déglukat bi ñu doon bàyyi xel jamono ji mbokk ñu leen dig daje mercredi bi di ñëw même heure même fréquence